ñoo ngi lay niw te di la di jël ci nuyo bi kilifa diine yi nga xam ni ñoo nekk ci bop njabot gi khalifatul am li taaifatil muridiya cheikh mahamadul muntaxa yàlla na yàgg te wér non lay nuyoo xalifa tijaaniya xaadir laayen ñëpp bàyyiwun kenn képp ku am cër ci l'islam rek ak nu cër ba cëro ñoo ngi ñaan suñu borom yokku la te wéral la sammu la sammu sax njabot di nuyu kilifa aada yi dale ko ci njiitum réew ak ñi njaboote ñëpp di ñaan réew mi jàmm suñ borom def ko fi bu baax tam sax fi dàkk ñoo ngi nuyu soppay Sëriñ Asan yëpp sëriñ bi te di leen bége bu baax a baax muy taalibe yi xarit rek am di jàmm yi nga xam ni ci réew mi ak bitim réew yi yëpp ci mboolem continent yi international foo ca dem fekk fa ñoo xam ne yow rek lañuy bàyyi xel di top say jangale sa su ne ak bëccëg suba ngon ñoo ñe ñew ne nuyu nuyoob xol te di len bege bu baax di ñaan suñu borom deggal seen yaakaar ta defal len fajuk aajo di nuyu mbolam ñi nga xamni abonné nañ ci seen bi dina su TV TV media tay waxit kep ko xamni setan nga ko na nga abonné te bes kolos bi ndax day gëna yok liggey bi bu baax baax ñoo ngi nuyu it groupe bi nga xamni moy groupe nasu TV media te mbolo mu takku nek ci di and serigne bi di liggéey l'islam di liggéeyal serigne touba ñoo ngi bëgg ñëpp serigne bi kon suñu émission waxtaanu diina tay inshallah rabbi ci àllarba gi di le 22 yafe ni ñu ci and ak yeen saa suné di leen andil ay jàngale yi wuté waye lepp di njariñ yin passé yëpp boko ko buñ ci def rek tabarkal la tey dañuy ñëw ci salatu gu tedd te siiw lool di salaatul fatiha buñ ko waxee na xel yi dem ci taalibe Cheikh yëpp waaye jullit yëpp a ko bokk ndax lu baax moom ñëpp a ko bokk te Cheikh Ahmad Tidiane Serif ñëpp la ñëwal ñëpp la fi nekkal kon sëriñ bi salaatul fatiha ci lañ bëgg a ñëw tey jii def ci ay waxtaanu wu gàtt nga baax ñu ci loo xam ne rek dinañ ci mën a jollikoo te mën koo jëriñoo ginnaaw bu ñu bàyyee nga nuyoo ko nuyoo mbokk yi lay seetaan bisimilah. waaleykum salaam. ورحمة الله تعالى وبركاته bu nu jiitalee sant yàlla sunu borom tabaraka wa taala ñu ngi julli ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam di wax alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilah il wa idul aat alhamdulilah ala kulli haal suma salaatu wasalaam ala sayidna wa mawlana muhammad rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi siyaar mbooleem xaritu Nasrou TV média yi fu mën a nekk ci àdduna bi di yiital ci siyaar bi suñu sang Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam mi nga xam ni borom bi moo wax ni wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir fu ngeen mën a nekk rasulillahi mi ànd ak yéen donte du ngeen ko gisit moom mi ngi leen di gis dafoo ko duyoo mu fay la kon siyaar ko te nuyu ko mm-hmm. yeesal suñu tarbiya ci moom mm-hmm. assalaamu aleyka ayuha wa rahmatullahi wa barakaatu mm-hmm. yaa rasulillah sallallahu alayhi wa sallam siyaar dëkkam bu tedd ba muy a Munawwara dem ba ca Kaabatullahi la araam ga ca Makka tawaaf ko fan yaa ngi nii di ñëw jaam yëpp waaj daw jëm fa Angela ngi laaj keroog sa taari bi bii mhm. jaamu yàlla yi gën moo ci gën baax mhm. xam naa maa leen doon wutal di tontu sax waaye ñu jox wuñ ko mhm. mel ni kon fan yaa ngi ñëw rek ñu xam na ñu ko bis kon mu dem Kaaba ga Ibrahim sam-sam Safa ak Marwa ak bu ñu waree Mbàkke ak li ko wër siyaar fu suñu soppe nekk di déglu nasu TV Média mm-hmm. te di ci jariñu ñi ñu am tañ nekk Mbàkke mm-hmm. soxna ay sotti ñoom ñoom soxna na koy mm-hmm. duñ bàyyi kenn yépp ñu leen di nuyu ak ña fa nekk góor jigéen mag ak ndaw dañuy dem Agrika siyaar yaay yi ak ñu nekk ci seen ginnaaw yépp nag Mm-hmm. ñaanal ñun ñëpp am tawféex am jàmm am sutura. Mm-hmm. te xéewal yi bari ñu wut këyit nañ ko am. Mm-hmm. ñu wut liggéey nañ ko am. ñu wut borom kër nañ ko am. ñu wut ay soxla nañ ko am. ku nekk ci natt yàlla teggi ko. ci barke rasulillah alayhi salaatu wasalaam. borom alxuraan. barke xaadim rasulillah. kon cinquante deux wala cinquante trois continent yi nekk. états-unis ba tax bu tudd état. suñu d' ñu seet ñëpp. fu sotti nekk. dem Europe union bi yëpp ñoo tam ñu siyaare leen bàyyiwuñu benn dëkk bàyyiwuñu benn gox bàyyiwuñu benn soppe hmm. fu waaye nekk ñu lay jox loxo ci leen ñaanal ñu am tawfeex tam sutura xanaa rek jukki ca ñoom soxna Umu Xëy Dramé hmm. ak baax naa mooy tànt ay soxna xarit waaw wala hmm. tànt kay ñu jokkoo moom léegi ci suba ndeysaan ndeysaan di la ñaanal soxna si nga am wér am toog fi amiin amiin amiin yaa ngi nga nekk dëkk bi yëpp mhm. fa tabarakallah mhm. daal di war nag di wër yëpp ba mhm. keroog ngay dem mm, réew dëkk yi ko wër noonu yëpp continent bu Afrique siyaare leen nga dem sax ba Russie Argentine Brésil fu nekk nii ñaa ngi ñu fay wooyee nga xam ne lim de du xaj fii ba Canada suñu bokk canadien yi yàlla dafa leen jàmm amiin allahumma amiin amiin boo duggee Italie boobu doo sañ a passé ñoom daal maa ngi ji ñoom ñoom hmm, boo demee Espagne da nga fekk soxna Fatou Diop ñëpp di ay garab di ay jàmbaar ba soxna Thiaba yàlla defal leen tawfeex ak sutura mhm. waaye mën a nekk rek mhm. ndax boo doon dim ba suba doo jeexal doo jeexal mhm. da ngay tudd rek noonu ñu yóbbaale ñëpp géew di ñaan suñu borom defal leen tawfeex allahumma amin amin sànni beneen bër waayam indi ñoom soxna Mariam Konaté jàmbaaru lislaam la te bëgg lu baax lool ndeysaan yàlla ko yàlla defal tawfeex amin allahumma amin amin amin amin ndeysaan borom dama bëgg li sëñ Xaadim mel ak sëñ maam Gow. ndeysaan ma ma def ma mel noonu. ndeysaan te it nañ koy def nag. Mm-hmm, ak saa yàlla na yàlla taxaw. Mm-hmm, mm-hmm. hmm? loolu la. bisimilah bu ko defee ngeen Afrique gi. siyaare ñëpp ñi fi nekk. ndeysaan borom sëñ bi ñoom soxna Baye mu baax mi. ñu koy siyaare baax mi mu tëdd. soxna si nga xam ne waroon na jébbalu keroog. Baye Fall bi soxna Aïssa. boo ko bàyyi ginnaaw. ak ñun ñu fi tuub ñëpp ci diggante bi. yàlla yàlla fan ñëpp toog amiin allahumma amiin amiin amiin amiin siyaar kilifa diine yi ci réew mi kilifa aada yi te ñaan nag jàmm am Sénégal na am fépp ci àdduna waaye na am Sénégal amiin yàlla dimbali na ci sunu njiit yi ñu dëppoo ak ñu topp ci ñoom xëccoo lu ko jar jar na ko waaye du ko jëm jëm ko te sëñ xaarim tool bu amee ay aw dig ku jàll digoo yaatu waaw te bu ñuy natt ay élection mm-hmm. dañ naan fii la tàmbalee. fii la yam fii la yem. léegi fexe leen ba ku tàmbalee fi nga tàmbalee boo ñëwee fi nga war a yem rek yem fa. Mm-hmm. jàmm ni ñooy kenn du xeex. Mm-hmm. waaye ku bëgg ni damay bay ba jàll si biir tool bayaale ko lu xaw yaa ko. waaw ginnaaw nag léegi mbirum xëccoo la. kala meer gañ. waaw nañ bàyyi bu ñu eggee ci loolu ñi ko war a def nañ ko def ku gañee ñu xam yaa fi waaye koo xam ne nga egg fi nga war a jëm la droiteel bàyyi gaa yi jàll jàll jàll àdduna noonu la baaxoo mm. li ko yàlla bindee léegi bul siif bul jaay doole waaw mm-hmm. yonte yàlla aadama jiitu si rek tey mm-hmm. ku nekk sa mission rek ngay dox bu jeex bu jeexee da ngay da ngay bàyyi keneen ñëw loolu mooy li fi nekk mm-hmm. bu ko defee nag kon mu ngi ñaan ñëpp teg ko ci aw yoon amin allahumma amin amin bi jaay sayyidina Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ñu siyaar la bu baax ñu tari te siyaar yi ñu nekk tey ci salle bi technicien yaa ngi toog donc daara yaa ngi toog mm-hmm. amateur amatrice téléspectateur téléspectatrice mm-hmm. yëpp a ngi fi mm-hmm. kon ñëpp ñu ngi leen di yàlla toog ak sukkura kon nag loolu jël si ci eh, jataayu diine bi kon bu ko defee sëriñ bi waxtaanu tey wi ni ñu ko waxee sànq rek salaatul fatiha lay doon nga xam ni ay milliers de milliers de personnes ñoo ngi koy wax saa su ne tàkkusaan bu jotee daanaka dëkk bi foo foo romb yaa ngi dégg jàkke yi ñuy wasifa di ko wax tamit feex nag ci ci ci monde bu yëpp waaye baax na ki koy def xam li muy def mooy lan moom gën koo fonk ki ko doowul defit bu déggee njariñ li ak li ci nekk dana daw jëm ca moo tax leeral lu mën a doon am solo ndax day taxoon ki ko xamoon gën koo fonk ki ko xamul woon xam ko te jëm koo fonk muy salaatul fatiha allahuma salli ala sayidina muhammadin alfatixi lima uxliqa walxaatimi lima sabaqa nasiri lxaqi bilxaqi walhaadi ila siratika almustaqimi wa ala alihi xaq xadrihi wa miqdaarihi alazim sëriñ bi salaatu googu ana lan mooy solo si maanaa mi lu muy firi firim kaw mi ak lan lañ ci mën a jariñoo ci wàllu baatin digganteem ak seex mi nga xam ni bu yaatoo ci Sénégal yàlla ak jëmmam la ba kilifa yu baree bare roy ko ci yor ko nga xam ne ñu baree bare ñu ngi ciy taal ay nit ñu di ci jariñu di ci jëriñ ay nit di àdduna ak alaaxira lan mooy maanaam salaatul faatiha sëriñ bi bismillah maa ngi doon def ay commentaire Abdou Assis Fall bi ñu mm-hmm. ñaan tey sant bu baax a baax mm-hmm. ñoom soxna ji euh, sëñ ji bi mm-hmm. ñoom tamit gis nga ko maa ngi gis nañ seen kii yi ñoom sëñ seex commentaire yu bari xam naa dañ koy boole dañ koy boole ci liggéey bi waaw insha allah ku nekk yaa ngi wax li nga sant li nga yëg di ko tàmbalee léegi fi mu la yóbbu surtout daara yi danañ ci gëna ñëw di yaata seen tour yi di jàng seen commentaire yi insha allah yow salatul fatih salatul fatih hmm. mooy xiiwal guñu ubi ci waxi hmm. salatul fatih mooy julli guñu ubi salatul fatih mooy xiiwale ki ubbee li ma uxlixa lima uxlixa ba noppi yemu ca wal xaatim li ma sabax kooku ngay wax mooy naasir al xaq bil xaq te moom ilhaadi la ila siraatil mustaqim xam nga yooyu rek jar na lu ne waaye baaxam egg ci mu teg njabootam yépp waxala alihi sàkk ci kattanu suñu borom te mooy xaqa xadri yi bi nga xam ni ci lay jëfe kon misdaaqi borom bi tabaraka wa taala rasul alayhi salatu wasalaam mu boole umma islamique salaatu boole leen ngëpp wa ala alihi kenn génn wa ashaab yi kenn génn ñoom ñëpp ñu tëbb leen ci xaqa xadri yi am nañu koy baamu juróom-ñaari yoon. xaq jee tax. Mm-hmm. buñ dee ñaan ñoom. Mm-hmm. da ngay ñu jàng ko ba ci xaq xadri ñu toog ko xaq xadri xaq xadri mm-hmm. xaq juróom-ñaari yoon. ñu koy eggale dañuy daal di ëff bal ba takk dafa am doole. salaatu boo xam ni dañu wax ne wali mag bu ñuy wax imaamu kurdi yi. ginaaw rasulillah alayhi salatu wasallam la feeñ al kurdi am nañu wax ni ci ñettelu xaru am nañu wax ni ci ñentel ba am 300 ans années après wala 400 ans années après waye lu ci nek rek jamono wul ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam sallam ginnaawum la ñëw mu bëgg yalla lool lool lool ba kurdi bëgg rasulillah sallallahu alayhi wasallam gëm lislaam fas ku yéene doxal mun topp diineem topp gu mag ba xërte egg ci mu suubu ci yoonu tasawuf di laaj boromam lan moo gën a gaaw pour ma si ci borom ni ko am na waaye foog nga topp yoonu tasawuf tafarlu muy dugg xalwa di génn di dugg xalwa di génn ba wax nañ am na ñeent fukki at ca quarantième année ba la ko suñu borom doog a feeñu ci melokaan yeneen déy ko ni ko yoon bi gën a gaaw fii ne ci tur yàlla yi fi aw bul nga ñëw ci man mooy nga jël salaatul fatiha allahuma salli ala sayyidina muhammad il fatihi lima uxliqa هو الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم لولا نجح إمام كلي يكو جفكو سوكو جفي لبك سمدي كنتك يو ميبرون لبك سمدي كنتك رسول الله مسيرانت loolu bëgg ci diine islam ci ay xusuusiyaat yëpp suñu borom danga ko rajo jox la ko imaam Kunti moo tax turam du Musa Fay Fay kon wax na ni salaatu bi ci moom la moom moom li mu jiitoo si seex ci kaw suuf ëpp na ay centaine centaine na ko kon salaatu bi yàgg na fi jaar ci loxo yu bari Mhm. imaam xasaar yi ma ko tudd ci la bokk ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen waaye fondateur bi mooy imaam Kurdi yu bële mhm. foofu la jaare ba ñoom mhm. loolu baax na ñëpp xam ko imaam Seex muy xut bu mag boobu jawharatul kamal la jaare ci moom waaye salaatul faatih mu commencé ci imaam Kurdi yi daa ñëw ba ci moom nag mu doon da ci doon loo xam ne kurul moom mosu ko ci am salaatul faatih dafa fi ne ku ko sikkar ñu taalibe Cheikh la dëgg la ndax da cee am cër bu ci kenn amul waaye ki ko sos dëgg dëgg imam ko kii la tudd loolu la jëkkatee la xëy mujj ca bay ca mbayin wa noo def ma raw la waaw te seex daa teel a xëy ba bi yeex a wàcc te bi ñuy bay daa farba koo xam ne ci ay ay sëriñ rek werante yi bari na ci. Hmm. am na ñu ñetti téeméeri sëñ Cheikh am na ko. ndax hmm. jaar ñoom sax def def tar bi ñetti hmm. téeméer. xanaa kooku bari na ku ci nekk mu def fa ba làq ngërëmul kooku naan la fa ne doog a am ñu wax ni ñeen fukk. am ñu ni lu mu néew ne dafa ne risée kon bu ñu lay jëmal doon fanweer képp la kon liggéey bi bari na bu dee ñett téeméer nag xërëm ci yàlla kenn mënu ko takk moo tax mu de adduna kàpp moom sëy naa si Amady Tidiane si moo tax adduna bi foo dem fu ne da nga fa fekk taalibe seex muy sikkar salaatul faatiha te salaatul faatiha képp ne nëw fi istifaara ngi ci biir jawatu kamal ngi ci biir laa ilaaha illa ngi ci biir waaw lu tax booy wax ne fii yow taalibe seex salaatul faatiha lay tudd bàyyi ci des salaatul faatiha dafa am doole dafa am doole dafa am doole moo tax ñu waxee ko laa ilaaha illa du ko doole astaxfirullah ah du ko doole jawatu kamal bii nag ala xayri rahmati rabbaniya wala yàquwatil murtaha itati ah xayri rahmati rabbaniya mooy rasul alayhi salaatu wasalaam kooku lu ko doole ci nit ah lasta bi markasil fuhumi wal mahaabi kenn xamul loolu lu mu doon ci si koy wax dëgg dëgg dëgg am na bis mu jàng ba yàgg moom gis ko muy sëgg ñu ne ko looy sëgg mu ne boppam mooy laal tuwaatiru asamaan te boobu mi ngi toog ci suuf tata jàllal min xaar boobu nga xam ne di sikkar ba si ci roosul xaqaayiq waaw kay mm-hmm. sëgg tuuti parce que boobu bopp bi mi ngi riisu ci asamaan mm-hmm. te booy xool jëmbi kese ngay gis mm-hmm. dama mu toog boobu ba boppam di laal asamaan si di maanaam mu sëgg ndax diggante bi asamaan maanaam dara mëntu fi si mëntu fi si kii salaatu goj jël gaa ngi ci def lu ne mu jëfandikoo ah, yàlla rii yàlla rii tefesam ndax kenn mënta booru ba ba ba jot am ndoxam borom door wér go jaar yalla da nga nan fi kep fofu mm-hmm. sey khalim salatu fati mm-hmm. dafa xam ay ay secret yu bari mm-hmm. bi gëna kat te borom wali yu yëpp d' ko ku ko jang ben yon doo tàbbi sawara yalla suñu borom wax ci alxuraan ni inna lahu wa malaikatahu يسالون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي آه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما xoolal déclaration bu rëy bi suñu borom def ay yéen ñi nga xam ne da ngeen di gëm ngeen ma borom bee wax mhm. yaa yu de si na amoon yéen ñi nga xam ne ngeen gëm ngeen yàlla mhm. gëm ab yonentaam mhm. gëm dee gëm dekki mhm. gëm bispénc gëm laaxira gëm sawara gëm àjjana gëm malaaka yi laa bëgg a waxal loo bëgg a wax daa bëgg ngeen xam ni man seen borom man yàlla mi ngeen gëm ak sama malaaka yi nga xam ne maa leen sàkk te kenn du ma ñun ñëpp jox naa leen ordre nu ànd tey man ak ñoom di julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam. ah waaw yàlla yàlla ak gouvernement. waaw yàlla ki jaam. loo gis ci kaw suuf muy dox moo ko moom su kaw asmaan yi juróom yàlla moo ko mu xëy xëy bis xëy na xëy yonent bi. bindub jaamam ba noppi xëyal ko ci toolam. loolu wéy na de sëriñ buy xëyal taalibe ko taalibe bi kon xam naa ne kon dara jëriñ dara mhm. jëriñ mhm. fonk na ko de sëñ bi fonk na ko de fonk na ko de ab soo mhm. xëyee xëy mu ne maag taalibe yi war si yëpp nan xëy ci sama jawriñ ji ma xëyal ko ci toolam bi inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi naka yàlla seen borom wa malaikatahu ak mboolee mi malaayikaam kon kenn desut ñoom ñëpp maase nañu bis ni tey fas yéene tàmbali du du ko bàyyi di xoolal xëy mun duutul arrêté ba keroog ngeen di dekki ci xam nga amul amul sallim wa taslima amu fa mhm, amu fa yu sallu naa lana bi rek mhm. amul dekki amul amul arrêté yéen nag comme ay nit ngeen da ngeen di gëmmentu di xiif di nelaw di yeewu di sonn may naa leen bu ngeen sonnee ngeen nopp kon yéen sallu alayhi xëy leen bu ngeen nee ba sonn wa sallimoo ngeen arrêté tas lee man dem noppalu bu ngeen noppee demaat waaye ñun ñu dul sonn ñun solo ali suñu ko neexee dina ne bu ngeen defee ñun ñun toujours ñu ku ñu fekk nañu ko dem bàyyi na ci dëggal lii waaye yàlla réer réer yonent man yonent bi sa sa xawlu waxti boromam bi ko bind su ne fas ba kër adduna yi tukki ngeen di dekk dama arrêté ma ak malaaka yi chaque jour ñu ngi ñu ngi ci sëñ bi loolu ak borom bi ni mu am ni mu toll. nga xam ne kenn xamu ko. Ah? mu fas yéene di julli ci rasulullah ba keroog bis ba ñuy dekki. Hmm. saloo alayhi. Hmm. loolu dafa rëy. lool. Hmm? lool ala nabi waaw ci yow képp nga sant ko malaaka yëpp nan ko def. waaw te te te suñu borom. genn mbaaxam xamul ci àdduna. genn mbaaxam déedéet. xam nga baax dañoo wax ne téeméer la. mu xaaj ko. téeméer bi téeméeri yoon. benn ba mu xaajaat ko juróom-ñeent mu fa xaajaat ko téeméer. jël juróom-ñeent fukk juróom-ñeent ba denc jox ñu benn benn baax bi kenn daal day doxee ku fi baax ci nga baaxee. wala loolu. fi ne yërmande mii. bu dee junni la juróom-ñeent téeméer juróom-ñeent fukk ñëwul. ñëwul benn yërmande bi yàlla wàcc ci kaw suuf yërmande boobu mu xaaj ko 99 vingt dix neuf fois jël benn bi jox nu nga xam ci la doom di yërëmee ci la yaay di yërëmee doom ci la aji baax di yërëmee mm-hmm. aji aji sonn mm-hmm. ci la docteur di yërëmee ab ab malade mm-hmm. maanaam yërmande boo ko ci kaw suuf dimbalante ci benn bi dañ koy defee Yeesu ba tey kenn daalu ko dina waroon seet meram ñu taale bokkut bi yàlla lakk jaam nañu bis ni tey fas yéenee tàmbali te du du ko bàyyi di julli ci rasul alayhi salaatu wa xoolal xëy mun duutul arrêté ba keroog ngeen di dekki ji xam nga amul. amul salli mu taslima amu fa. Mhm, amu fa yu bi rek. Mhm. amul dekk amul amul arrêté. yéen nag comme ay nit ngeen dangeen di gëmmentu di xiif di nelaw di yow di sonn may naa leen bu ngeen sonnee ngeen nopp kon yéen sallu alayhi xëy leen bu ngeen nee ba sonn wa sallimoo ngeen arrêté. tas man dem noppalu bo ngeen noppé demat waye ñun nit ñu sonn ñun solo alayhi suñu ko nee bu ngeen defé ñun ñun ñu ci war rek ku ñu fekk ñu ci dem bàyyi ci dëggal li waye yalla reel yonent bi man yonent bi sax xawlu waxati boromum bi ko bind so ne fas naa yene bakkar aduna adduna tukki ngeen di dekk duma arrêté mak malaka yi sax suñu ngi ci sax suñu ngi ci señ bi lolou ak borom bi ni mu am ni mu toll nga xam ne kenn xamu ko ah mu fas yéene di julli ci rasulullah ba keroog bis ba ñuy dekki salo alayhi loolu dafa rëy yu saloon ala nabi waaw yëmu ci yow képp nga sant ko malaaka yi yëpp nan ko def waaw te te te borom genn mbaaxam xajul ci àdduna genn mbaaxam xam nga baax dañoo wax ne téeméer la mu xaaj ko téeméer bi téeméeri yoon benn ba mu xaajaat ko juróom-ñeent fukk mu fa xaajaat ko téeméer jël juróom-ñeent fukk juróom-ñeent ba denc jox ñu benn benn baax kenn daal lay doxee ku fi baax ci nga baaxee wala loolu fi ni yërmande mii bu dee junni la juróom-ñeent téeméer juróom-ñeent fukk ñëwut benn yërmande bi yàlla wàcc ci kaw suuf yërmande boobu mu xaaj ko 99 fois jël benn bi jox nu nga xam ne ci la doom di yërëmee ci la yaay di yërëmee doom mm-hmm. ci la aji baax di yërëmee mm-hmm. aji aji sonn mm-hmm. ci la docteur di yërëmee ab ab malade maanaam yërmande boo ko ci kaw suuf dimbalante ci benn bi dañ koy defee yéen ba kenn daanu ko boo doon seet meram sawara mii ñu taale bokk tax sawara bi yàlla lakk jaam ñu ëllëg sawara ñu lakk lakk jaam ñi bi mu waxee Jibril ni ko da ko ci andil Jibril ba mu ko jubee daa xam suñ borom sottil ko ci dugal jël sa ci aw xal def ko ci juróom-ñaari téeméeri géej géej gu ne maam ci juróom-ñaari téeméeri at mu rog ko jukki ba mu doon ab këriñ mu xar ko xarit ba mu ci jëlewaat dellu si ko fii as mooy li ñuy taaloon merum yàlla kon bu nu eggee ja jëm te nee naan jaxanama sax moo gën a sedd ci sawar waaw te te jaxanam ci la ko jëlee waaw pour wax la yërmaande yàlla waaw kon nag koo xam ne sa benn mbaax xañ ci àdduna mm-hmm. nga fas yéene yow yàlla fi nga nekk ba keroog bis ba ñuy dekki doo doo arrêté ci ni xep rasul ay ngeneen ak ndax wax la ko بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما خلا والآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى خم لولو ولا سوف دينا لخب دي دينا كو جور دينا كو جوخ من صبر بكرو غنان شوخ داتو فترضى موي إن الله ملائكته يصلون على النبي yàlla dafa fas di gradé yonent bi di ko joxe ay xéewal di ko joxe ay grade di ko décoré di ko décoré ba keroog yow mi yóbbu asona di wala soo fa yuti keroog bu ko fa tarda waaw kay kon ku toll noonu yàlla borom bi ko sàkk toll noonu di ko defal loolu bu kenn gàntoon ni ab yéefar la nu mu koy wàññi boobu naa fekk bañee nu mu koy wàññi bu keneen ñëwee ci biir diineem génn ci lesbienne homosexuel lu mu koy wàññi ku toll yàlla boo gëm boo jëm ci yow. koo mhm. mu rasul alayhi salaatu wasalaam. waaw. wala kër mhm. moom moom nag suñu war a wax ni. Mhm. damay julli ci moom maag samay malaaka. imaam di seet ci julli yi yàlla wax. bu ci gën a rëy mu jàpp ko. ñu ni ko jëlal bii. salaatul fatiha. nga xam ni moom mboolem li maa uxlixa. lu mu tëjoon lu ne. soo ko jàppee mu ubbi ko. الفاتحي داي اوبي موم صلاه الفاتحي لما اخلخا كيب كو تجو كيب كو اوم كيب كو لورو كيب كو جاخلي كيب كو ام بروبليم والله الفاتحي لما اخلخا غاي خم نيو ها والخاتم لما سبح كيغا خم ني سي باركيم سي لا كو تگ ياكو جيتي وون نيب خم ني مو سي باترون te moom mi nga xam ne ñëw na mm-hmm. imaam Kurdi da ko yàlla signalé de mm-hmm. su ñëwee naasiril xaq mooy feeñal dëgg bil xaq ci dëgg wal haadi gindiku gi nga xam ne ci la jaam yi war a gëndi ñu teg leen ila siraat mustaqim mm-hmm. ci loxoom leen kooku daal xaqa xadrihi mooy dëgg dëgg dogalu yàlla bi nga xam ni ci la yàlla defee li ko neex faxal li may sa faxal li may foofu xadaar li asim ca kattanam nga ko la yàlla la ko yàlla defee gis nga wax naa ne ko wax benn yoon doo lakk waaye am na ci kitaab yi ñoo xam dañu wax ni doo lakk non seulement waaye ku la bay yow lakk moo tax gis nga jullit yi na def très attention waxuma ñu ci des nit a ngi sikkar tur yàlla boo xam ni bañ ko wóoru waaw wala nga di ko dimat ndax ndax day day tudd yàlla tur woo xam ne suñu borom dafay maanaam sécuriser yaramam beneen def nga xam ne bu dalee sa kaw nga gaañu bu dalee sa kaw nga gaañu xam nga wali bu toll si Ahmad Tidiane Serif sëñ bu nungoo nit nungoo taxaw ci barab di ko caricature di ko waxi wax yow xamoo seex ah public nag dama dama la waaw wala boo xamul seexit xamoo salaatu fàttee mi salaatu bii ku mu mën a doon ci kaw suuf laa wax boo ko dee sikkar ku bëgg jàmm na la fa baax ku la bañ al xew yalla bëgg na la ba ndax bu yalla bëggul won nga bax du ko xamal be yalla bëggee nga bax la la ko jangal su bëggul won nga bax do ko xam suñ borom day wax ni ñaan kat mën ta ñaan maa ko yéenee may motax ma won ko fi mané ko waxal sa xol yalla kum nar ta may du wax nga ñaan ko say wax jëmee ci ñaan yalla rek suñu borom nar naa may salatu fatihi lima ma wax li xewal xaatim bi gi ci biir sëñ xaatim boo xam na nga ko seetlu bu baax dañu wax ni sirru salaatul faatihi ci ñetti baat la nekk am na ci biir salaat bi ñetti xàqu waaw waaw jàng ko اللهم صل على سيدنا محمد م. الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق واو. ناصر الحق بينا بالحق نعم والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق, حق قدري يكفي حق jëlal jëlal jëlal sa kii ba woon la xam nga ñetti xàqu xàqu bu nekk 108 la 108 multiplié par 3 324 324 ki nga 324 ci salatul fati waxuma la adduna képp de waaye àllaaxira sax da koy defar waaw amul sikki sàkk kenn du toog benn jataay yéen ummatu man alayhi salaatu wasalaam sikkar salaatu fàtte ñetti téeméeri yoon ak ñaar fukk ak ñeent ci lu mu mënoon ci kaw suuf wax ko yàlla te yàlla rek la wu sa bopp nag yow bala nga dugg ndax mën nga ndoxam déet geej gi jeen wu nee ngi ci yow kay yaa mënta napp nga japp ni geej gi amul jën mm-hmm. waaye géej gi la ni jeen wu nee ngi ci mm-hmm. bo mënee ndox ya ca 324 go suñ xaari man ndox ndox nak moy condition yi moy mm-hmm. diglu fiñ lay jaarale ndaysan waju baax baax mi may jot ndaysan mu nga ca dëkk ba ni ma dama bëgg def nga defal ma tarbiya démb rek ñu joxante xanaa bu seetaan ne xamni ne lay wax pour fa dafa nek sama biir téléphone yàlla na ko yàlla yokku yokku wér hmm? ne dama leen di seetaan man sax sama fam yëpp xadir lañu mi ngi nekk ci oso foré dafa na ne kilifa la fa ak yeneen bi yité yu muy def kilifa la waaye da ko jaraloon bayyi la muy def lepp ak liggéey bi ma ko togal xaar daan fexé ba di nga soxla fekk la foofu doo déplacé wu sëñ bu baax bi maa ngi lay ziar bu baax mm-hmm. xam naa ci fin bi sa tur dama dina ma dikkal mm-hmm. yàlla yàlla dafa la tawfeex mm-hmm. ah kon soo mënee ndox laa wax trois cent vingt quatre fois géeja ngoog ci salaatu fàttee goo xamante nii la ca nekk ci mbell nekk ci ci jën maanaam benn nappkat mënu koo jot pour wax la ni la adduna bépp buñu maasee woon di ko sikar mu defal adduna bépp moom salaatu fàttee ndax attan na ko 324 divisé par 18 top len fofu ma wax la 324 divisé par 18 waaw dabar ci kursi jangal tuti ma won la allah الله لا إله إلا هو الحي القيوم الحي الحي الله يلا دال لا إله أم البن بور بني ورا جامو بو جامو مجرين لا nga mën koo bañ koo jaamu ñàkk a jaamu lor la hmm. ilaa huwa budul borom bi tabaraka wa taala hmm. kan mooy kooku alxayu hmm. ki nga xam ne loo gis ci kaw suuf muy dox suñ borom ko bind muy dund xayu baatu xayu xayu 18 la multiplié par 18 324 encore xoolal séeru salaatu fàtte sëñ xaalis bii dañ ko waroon nëbbu de ah <laughs> taalibe cheikh yi xamuñu xamuñu lii de. xamuñu ko de léegi xam naa ne war nañu mën a kii nag bu raaj bu baax. ah daay daay daam du set kii dañu ne bu code bi. Hmm? ndax fi ne waati waawoon fi ne ñu bari ñu may dégg. <laughs> yàlla yàlla doon leen wér di barke maam yu tedd yi. ah 18 multiplié par 18 mu jox la 324. 324 hmm. divisé par 3 ñetti xaq yi nekk ci salaatu fatiha ñu ak kër yi. Hmm. xam nga kan mooy xaq yàlla. yàlla képp mooy xaq. dëgg. ah fal xaq wal xaq aqul du loolu la waxoon ca garab bërëm baag iblis waaw lu waral sa géej gi mu ne ko la am naan na jaxanam soxna maa ngi déggoon ko loolu fal xaqu loolu la waxoon kooku mooy borom bi tabaraka wa kon ñetti xaq yii dañoo wax ni moo tax mooy siru dëgg dëgg secret salaatu sal ndax suñu borom ñetti position yi mu fa jël il fatihi li ma wax ne wal xaatimi li ma sabax man de naasiril xaq maay feeñal dëgg ci kan aji dëkku ji muy rasul alei salatu salam wal hadi ila siraatika xaqa xadri dëgg dëgg dogal maa ko jël lu ma xas jël kenn mënatu ma saa jëlee ba muy xadaari xasim tamaay maay borom kàttan gi salatul fatiha subhanallah ak kon xayub 18 boobu noonu. waaw boobu mujj bi la moo lay jox 300. moo lay jox 324. waaw kay moom la lay jox. Hmm. danga nga koy topp ba ci dund rasul alayhi salaatu wasalaam gis nga am nañu wax ne siru bi foofu la kon ku ko saxoo sikkat 324 fois hmm. te am digal lu jëf ko maa ngi wax ñi koy jëf ñëpp ñu ko gis ne nga wax seen xarit hmm. mu leen bisimilah rek ngeen tàmbali duur duur per yàlla faj seen aju àdduna ak fi ne boo jëlee mhm. la. 9 la seet ko 3. waaw 4 3 ak mhm. mhm. juróom-ñeent rek lépp ba ci table de médication benn typification yi ci 9 la terminé. doomu aadama turam yi nga xam ne ci lay recevoir ak ci lay ci lay ci lay produire la juróom-ñeent su su suñ seeroo xasee tegu quatre vingt ngay wax quatre-vingt-douze neuf ngay wax ngay wax waaye ci neuf la yëpp yem neuf sax mooy mooy mooy jëm doomu bopp bi jëm suuf neuf la boo ne ni sa loxo la neuf mooy lépp juróom-ñeent yooyu nga boole leen moom booba leen neuf bi ak un mooy araf bismillahi rahmaani rahiim nga boole leen neuf bi ak un fukki gendarme ak juróom-ñeent yële nekk ci ginnaaw siraat boo boo boo yëgee siraat ba wàcc. ne waaw te saata xasar yooyu. nga xam si suñu borom nee na dara taxul ma sàkk leen lu na aay ba. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا نعم. ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ديسنوف موي دم فوفا عليها تسعة أصحاب ديسنوف موي عرف بسملة ديسنوف مو دي سوات في دغال دي صلاه فاتي في مي جار لي مو داجال لب ci juroom ñent ها كون nga xam ni yàlla dafa wax ni lu ngeen gis ci kaw suuf muy dox ci ci xayu laa ko bind kulla sayin وجعلنا من الماء كل شيء عين افلا يؤمنون برام ne وجعلنا دفنا من الماء ci ndox كل شيء lu ngeen musa gis ci kaw suuf muy dox ndox laa ko créé ndox boobu ma nga xam ne ci lay créé yépp ayu ci biir fi la nekk subhanallahi si hayyun moy ay dundu saa yu nekatul ci yow rek deega motax moo damay wax ni saa boy sikar lim bi ni ci kaw suuf fokk yalla teral la te do faatu te bàyyi waxi ko la teral fi ne fi ne dom joo jur fekk yaangi sikar lim bi ni fokk yalla def ci mom barke ba man dara sa ginaaw te li gëna bari ñaar di nga fekk njariñam mm-hmm. do ko do faatu xayu bi. maanaam daal kon loo taxaw du daanu daal. déedéet dañ ko doxal ba ko la mën a wutu ñëw ba commencé ko doxal ko doog a wàcc ko dem koo ko mën a wutu ñëw noonu lay noonu lay doxee. kulla shay'in ayin la wax. salaat Fatiha foofu denc ko ci biir. dajale ko 18 fois mu jox la benn xaq. xaq 3 fois mu jox la 324. est-ce que kii mooy salaatu Fatiha seen Fatiha. Mhm. ak rëy. yàlla xam na ko. gis nga moom salaatu Fatiha am na ñu wax ne foofu la sër bi ne. waaye am na feneen fu mu gën a doy waar il fatihi il fatihi soo ko seetee 500 la 500. lii may wax waa Kaolack daañu ko xam. nañ ma baal maa ngi sàcc seen secret. xam nga bu ñuy def tar tarbiya pour fannaaw. juróomi téeméer lañ koy def ñoom. salaatul fatihi. dafa kër bàyyi. <laughs> juróomi téeméer lañ koy def. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما ñu koy xanaa ñu def koy juróomi téeméer hmm? bu ñu noppee dañuy jël lixlaas moom lañ koy boole ceeg ci huwa maanaam lawalu laaxiru saahiru baatin gaa yi ngeen baal ma dama jël maa gi maa ngi te gaa yi loolu kenn war koo génne suñu loolu sangi saa koy joxuñu ko taalibe de waaw sang saako yor waaw waaw waaw waaw ños ños ak si si si yi ah doo ngay eh, dem leen laaji ndigal la ci suñ ba dem leen ci xel général servimat yi maa ngi mu tedd ba yàlla na ko yàlla yokk wér mbokk njaboot gépp waaw bu leen dégg asan kan mi damay jàngale rek mm-hmm. waaw waaw ñu jox leen secret bi ñoom loolu la ñuy boole mm-hmm. lawlu laaxiru boobu mm-hmm. ak lexlaas bi salaatu fati bi lim yooyu ma la wax noonu ba noppi jël daa ilaaha illallaa nangam <laughs> boo ko ne boo doo ko saxoo mukk ñetti fan te yéegoo li këpp ci suuf ñu wàcce la mm-hmm. foofu la affaire bi nekk waaw mm-hmm. hmm? ah, duggaguma de mm-hmm. kon mbir maa ngi noonu kon deuxième partie ah. salaatul faatiha ci deuxième partie bi ci laa doon bëgg a ñëw nombre wala lim yi nga xam ni ñi dañoo wax ni trois vingt 324 bi mooy siru bi te wax naa la dalil bi ci ñetti xaq yi ci nekk wax naa la dalil bi ci xayu 18 fois bi. Mm-hmm. ak xayu li mu doon. Mm-hmm. waaye am na ñeneen ñu wax ni. Mm-hmm. sero bi pire mi ngi ci baat bu jëkk bi. allahumma yàlla. te yàlla moo waxal boppam ni. inna lahu malaikatu ñu ne ñoom ñu ne allahuma salli. yàlla julil. allahuma kon lim bi 106 la. ñu ne kon waxtu woo toogee jataay saxoo 106 fois salaatu ala nabi par par suba. wala nga di ko liggéey ginnaaw takkusaan as maa ngi lay seeral ci kàttan suñu borom da nga am teraange àdduna da nga am teraange àllaxira kon seeroo ngi foofu. am na ñeneen ñu wax ni mu ngi ci baatu salli bi. 90 90 bi. boo ko dee liggéey. ah boo ko bu fekkee da nga wax salaa sax 100 ngay am. mu jox la 100. ak sam yi. bu dee 90 bi rek nga andi moom dalay jox nuuf bi ma la waxoon rek ak sero bi nga ci rek am ñu wax boo ko dee jàng 90 fois par jour moom salaatu ala nabi loo bëgg suñu borom defal la ko xam nga mooy ñetti fanweer 30 fois 3 30 mooy weer wi ñetti yoon mooy 90 boo ko saxalee loolu la loolu la maanaam suñu borom faj sa aajo àdduna ak alaxer nga xam nga saxal salaatu fàtte bis bu yàlla sàkk juróom ñeen fukki yoon hmm? am nañu wax ni mi ngi nekk ci turu Muhammad bi nekk ci biir allahumma salli ala sayyidina Muhammad Muhammad manam turam bobu ci la secret bi nek te bu dee boobu 92 la nga saxal di secret salatu fatih juróom ñeen fukki yoon ak ñaar yoon par jour am ñoo xam dañu wax ne sirru bi fofu la ne kon limuy tek télé mom salatu fatih muy léppam da gën ndax ginaaw yi ma wax bo ci téye mu yóbbu la ba ca adratu xudsi yu adratu ilahiya maanaam li benn bu ci nekk ci jàpp na am na ku ci benn benn bu ci ne ci wàllu yi am na ci boo xam ne boobu rek nga téye soppi ba egg ci yàlla rëkk sa waa kër yaa yow yóbbu ba ci suñu borom bu ci nekk am ñoo xam ne 92 képp dañu saxoo si kar mm-hmm. moog seen jaboot am ñoo xamante ni mm-hmm. eh, 324 324 bi. Mhm. lañ saxoo si kar mhm. am na ci ñoo xam ni 90 bi. Mhm. lañ saxoo si kar am na ci ñoo ñoo xam ni 106 euh, bi. muy allahuma bi moom lañ saxoo. kon yow mii may diglu la nga xam ni 92. trois 108. ah 324. boo ci jàpp ci salaatu fatiha te bàyyi woo ko. sëñ Tuubaa nee na fa kullu wirdin يريد المريدة آه. بحضرة الله ولن يحيد سنت لاكو كما الى الجنان كما نحن فتعرف كل ورد بيب ورد بو خامني جاب نكو يو طالب تباي وكو تسالال كو دا لا يوب با كير يالا سيني بروم تيب لا ليمو تيب غاوي باخي ديلو سي بولي غيم تران يا خام نك مي ورد سي احمد تيان فريف وي سنت لاكو واخ ولا مي ورد سي احمد خادر جيلاني بي ولا keneen ku dul ñoom ci nit yàlla yi waaw audition mu ne axtaay borom tubaab nee na wirdu waay jàpp te sàggani woo ko hmm. te la la wirdu sant nga sax ci tugoo ba hmm. di nga am yàlla di am rasul alayhi salaatu wasalaam ko hmm. kon loolu la wax sëñ boo seetloo salaatu fatiha juróom benn ismilaay ahsam la kimile yoo xam ne benn bu ne mën naa defar adduna boo jàpp ci yooyu mu fi nga bëgg xoolal allahuma moo jëkk امنا الناشر امنا حق امنا هادي امنا خضري ها امنا حسين الفتاح مجرم يا اللهم صل على سيدنا محمد الفتح فتحو غدغو لما اخلي والخاتم لما سبق ناشر الحق ناشر بدغو حق بدغو والهادي هادي دغو الى صراطك المستقيم وعلى اله هاكا ديك ديك شيمون خضر بيو مو جوم نياري اسم لاي اقسم مانام صلاه الفاتحه دا فا داجي ليپ دافا تي بن بن بن بن بيرم نون موتاخ مو ام دولي لول سي كارتون يالا سي تبارك وتعالى كوك ميسي صلاه الفاتحه كون نك كون الله بو جيك جا واو ناصر واو حق واو هادي واو خضر واو فتاح واو اك حسين موتاخ بن صلاه بو داجي ليپ جوم نياري اسم لاي اقسم ci moom mi la nekk ak rëy mm-hmm. mm-hmm. yàlla na ko yàlla muurloo te ku liggéey ku ne mm-hmm. koo gis sopp ko waaye yow mi koy liggéey amoo droit bañ kenn moo tax boo gisee sëñ Tuubaa waxoon ni falaat falaat tuhaadu man raaytum fa'u yuxriju waaw borom Tuubaa nee na yow sama taalib bi yow julit amuloo droit bañ kenn koo xam da ngaa gis muy tudd baatu Ismaïl bis bi baatu laa ilaaha illallah parce que li muy li muy jëfandikoo moo tax. gis nga boo boolee sëñ Xaadim li muy wala wala jox. waaw. nga jël allahuma jox la. 66. allahuma ngay jël 106 la. waaw 106 106 ngay jël. Mhm. jël xaqu 108. Mhm. jël naasir 311. Mhm. jël haadi 20. jël xadar trois xadar 300 jël Asib 920. jël Fatan 489. mu jox la 2258. ah yii la lay jox ni lim bi gën a rëy ci moom nga xam ne boo toogee benn barab sikkar ko moom nii ca xalwatu yàlla nangu ko loolu ci fas yàlla defal la waaw. xalwa boo am. maanaam nga bëgg a fal buurub àdduna mu falu. folli ko mu folli ko ñii xëccoo nii. loolu ci gaaw. nga fal diw léegi diw wàcc jeexal ak leneen loo xam ne nag am na ci àdduna loo xam ne bëgg mu dox te nga soxla ko ci kaw suuf aju faju mbir mu jub feebar nattu nangam nangam nangam si karal tur yi ci kàttan suñu borom ci lim bu toll nii nga ñaan suñu borom tawa taala mu fajal la sa aju yàlla faj ko ëffal say doxaraay sa kanam bu dee yow ëffal ci ndox jox kooku bu jëfandikoo lu mu ci mën a doon yàlla faj aajo ki koy jëfandikoo bi hurmati rasul alayhi salaatu wasalaam salaatul fatiha nga mi ngi noonu jërëjëf jërëjëf sëñ mat na kon kon kon seen émission waxtaanu diine ak salaatul fatiha dégg ngeen njëriñu mag yi nga xam ne sëriñ bi indi na ko ci ak leeral bi juróom-ñaari tur nasir hadi xaq xadar ak azim di juróom-ñaari tur yàlla yoo xam ni jàpp naa ne salaatu de nga koy nga koy fekk bariwul benn salaatu bu boole juróom-ñaari tur amu ci. moom rek moo ko nga xam ni dégg li mu ci wax nee nañu seex wax na ci jawaahirul maani mm-hmm. ni ko ko wax benn yoon sëñ wax na ko sànq. maanaam mel nga ne ko julli ci yonent bi ci mboolem julli yëpp. waaw mboolem julli yëpp. nga xam ni tëgg nañ ko ñu koy julli ci yonent sans salaam benn salaatu fatiha remplacé na ko. Mm-hmm. nga xam ne da ngay mel ni koo def ay millions yi millions. waaw ndax xaq xadri yi moo tax. waaw xaq xadri yi. Mm-hmm. xoolal ko liggéey rek ni mel. fa mu tëdd ca adduna bi yëpp di ko joobe fi mu dem ci Afrique bariwul de waaye àdduna ba àdduna daj foo dem fekk ko te salaatu fatiha ñu ñoo ko def ba léegi ko jàpp te bàyyi ko te sellal ko te doo tooñ xam nga noonu léegi li tee dem mooy nekk ci dara jaxas nit ñi jaxas nit ñi waaw sa am tijaan wax ni taalibe bi tàllal ñaari tànkam jubale ko ci buntu kër jàmbur donte sa buntu kër nga toog waaw toog sa kër képp ah def nii ma def hmm. jàkkaarloog buntu kër jàmbur talé sang ja tank tànk jublu fa seex da koy téré talibé yow nga ni talibé bi nga ta ko la neex teg ko baat. waaye suñ commenté nañ di saaga rek. waaw fooy demee. manam mbir mi li ci nekkoon mi ngi ci biir kiñ ko jox moko ko mënta jariñoo dama la wax ni géej nepp ngi ci biir ay ko ta fi nekkatu. ab si ko salat faat day manu ma ngi dégg jamono ci ginnaw ñu kilifa gu mag. mos mhm. naa soxla juróom-ñaarat ñu ko jàng salatu fatiha te moom ci la bokk sëñ cheikh cheikh ahmad tidiane al maktoum mm-hmm. ndar la ko defoon dañ ma seetal juróom ñaari mag ñu jàngal salatu fatiha ndar ni mu toll te ko doon seetloo wër simin si ba simin bi jeex ñu ko ñett la am te ñu ma ko salatu fatiha ci at xol lim bare salatu fatiha yoo xam ne yaa ngi koy wéru neex wax ko nit ñi neex def ko nit ñi bul cheikh bul tiimal salatu seetal sa bopp ñoom dëgg la ñaar lu dëgg la ilaha illallah waaw mm-hmm. demal marché ba rek ñu ñu may la ñu may la fa ceeb bari leen ne yóbbul nga def ko ci saako bën bala nga egg sa kër tuur demal ci teen lu mu bari bari ndox fool baag bën rek da ko roote baag boo xam taat daa doo am dara du bi yow liñ tee yàlla ci nun la ne wax ju bon ji jëf bon ji yéene yu yi ba noppi saxoo ngoon xam nga lan moo gën a rey suñu suñ dugg ci jàkka ji hmm. fëgg yàlla ba mu ba mu ne ku ji di la xoon hmm. yaa ko wax de allahu akbar allahu akbar ashadu an laa ilaha illa allah ashadu an muhammad rasulullah yaa la falaax yaa la falaax xadda xaamati sala yàlla ni ñokket allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa jógal fi nga ne yaa ko wax yàlla de suñu borom ni ñokket yaakaarloo yow nga ne ko alhamdulilahi rabbil alamin rahman rahim maliki iyyaka nahbudu suñu borom ni la man nga ne ko waaw wa iyyaka nastahin mu ne d'accord naa ko de nga sëlmal ba noppi koo rajal tooñ ko li nga wax yàlla ni ko yow képp laa gëm yow laay jaam du ma jaamu keneen te boo jóg jaamu xërëm waaye kana say ñëw képp laay sàkku sa ndimbal te boo jógee maanaam benn waaye attan laa nga dal ci kaw keneen waxu dëgg boo dëgg ba ñaari baat yooyu wax ci jàkka ji boo xëyee foo jëm yàlla fekka yaakaar naa wa yaakaar naa mooy leen dal ci yi tur yàlla yi fi mu nekkoon lañ tàng jëpp lañ def am doole man din manoon ba yi am am li ñu am waaye ñun ñu koy sikkar ñoo demul fen yàlla na yàlla defal tawfeex defaral suñu xol yi te jéggal nu te jéggal ñëpp Seexul Xadim defe naa ni kon mën nga tëj mat na seen émission waxtaanu diine ak sëriñ bi salaatu faatiha yéen ñu rool takkar yi dégg ngeen li li ci ñu joxe nga xam ne boo ci jàpp rek mu defal li nga bëgg lépp 324 bi 108 106 92 ak 489 defe naa ne yooyu la sëñ bi joxe. nga xam ne boo demee ba ca bu mag ba nga xam ne nga toog benn place am hmm. soxla bu réer yi dugg xalwa 2218. waaw nga liggéey ko. nga liggéey ko 2218 sëñ xam dafa doy waar. jëlal ismu saati. Hmm. ismu saati Allah. multiplié ko par 33. waaw da lay jox 2178. 2178. ci. 40. képp. 40 mooy mii Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. waaw kay fanweeri ismu sayti ak ñett. ak benn mii Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ngay dóor mu jox la li maanaam juróomi tur juróom-ñaari tur nekk ci bi yëpp ñoom dajale ko boo jëlee fanweeri ismu ak ñett ak benn mii Muhammad rasulullah sallallahu alayhi ma tax jàll naa ko addi waati waawoon waa waa waa السلام عليكم ورحمه الله وبركاته